asalaamaaleykum mbokk yi di nuyu naa leen yéen ñi safoo di seetaan suñu TV 221 tey ñu ngi ànd ak yéen ci seen émission sañse plus ànd ceek yi borom tissu yu baax yi ah borom sañse yu baax yi lépp luy sañse lu rafet rek moom da ciy dox du leen wax dara du ma ci sori da ngeen may topp rek ñu dem ñi daal di xool. Assalamualaikum, comme nous len ko waxé won ñoo ngi nii toog ak suñu invité du jour mi mari Thiam borom vax yu baxi ñu ngi leen di bàyyi mu nuyo wax leen moy kan. assalamualaikum mbok internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox waccu way lu gëna kawé di leen wax ne man la Mary Thiam ñaareel xaritu jëkkëram ñu gën ko xam ci borom vax yu riche yi. macha allah mais Mary xam kan moy mari, mari moy ben. comme ni ko xale yi jigéen yi di waxee rek nee nañ comme mooy maari mooy benn brave dame boo xamante ne mm. bàyyiwul dara boo mm. xamante ne lépp luy dox ci wàllum sañse rek daf ko bëgg mm-hmm. ci laay laay dox ci laay nekk ci laay liggéey mooy sama yitte daal macha allah macha allah léegi mën nañ xam yow Marie lan moo la motivé lan moo la motivé ba nga dugg si affaire da ñaw affaire sañse macha allah yaan ji yi ñu fi gis euh, sunu motivation moom dañ koy euh, kii wax ne bañ nekkee tout tànk ba léegi mm-hmm. def nañ couture mm-hmm. dañoo jàng ñaw def nañ couture def nañ tamit lu jëm ci walum jaayum ci si def na sax lu jëm ci walum mercerie ci loolu la jógee xel mi daal nacc ci ne naa war naa mën a ubbi sama yëfi bopp daal mhm. ma ne naa def sama yëfi bopp mon sama propre entreprise ak ñi nga xamante ne ñoo ma ciy jàppale mhm. macha allah loolu rafet na léegi mën nañ xam yow euh, affaire ñaw beeg ñoom sañse yeeg ñoom seen ah, ndax da ngeen ci yan difficulté ngeen ci jànkontrer waaw presque ñaw bi moom difficulté bi bëriwul ah bëriwul parce que li ci liñ ciy gën a am ci difficulté lu ndaw a ndaw mooy problème mu euh, mesure yi di seer léegi yooyu ak euh, niñ comme ni ko nit ñi waxee tëyër yi mooy loolu daal ñun mënut a wax lépp waaye na <laughs> ñu ngi ci ñu ngi ñu ngi négocier ak ñoom daal ñu ngi góorgóorlu mm-hmm. macha allah Marie ñu ñu gis ne gisuñu fi ay vax kase gis nañ fi ay robe été yi ñoom jees jesner ñoom wàllum borodé ah et cetera ñuy laaj lan ngay préparer ci été bi waaw robu été yi moom wax dëgg neex instant yi ku ne xam ne ne dëkk bi dafa tàng mhm. te robu été yi dafa neex ci tàngoor man a ko robu été yi dafa neex ci tàngoor ñu ngi ci tàngoor te robu été yi mën a doxantoo mën na dem tour mën na dem xew mën na dem fu la neex bokkut ak instant nga xamante ne yi ñuy wax maari borom vax yu riis yi tax ñuy wax mais pour tàngoor bi nii dañuy dugg ci tisi essai yi mhm. daal di ñaw lu rafet di jaay mhm. rob bu yu rafet nit ñi di ci sañse di filaale dem fu la neex ñoom boreede boreede yi moom comme ñu ngi waajal tabaski bi ak euh, mbasin yeeg yooyu moo tax ñu dugg ci ku ci bëgg mbasin wala borédé jasinaire tout ça boo ñëwee fii ci maar yi waaw ku ñëw fii ci maar yi ñaari xaritu jëkkëram rek borom mm-hmm. vax yu lépp nga fi mën a fekk mm-hmm. tamit ci jaay vax mbasin affaire yooyu mm-hmm. dañ cee boole lépp loo xam ne jigéen da koy soxla dañuy jaay xeetu nuisette dañuy jaay xeetu sër dañuy jaay lépp loo xamante ne robu tàngoor lépp loo xamante ne daal jigéen da koy soxla rek boo ñëwee fii ci maari boutique da ko fi fekk macha allah léegi ñu bëggoon laaj ku ci bëgg nan lay def waa ku ci bëgg moom ni ngay def méttiwul waa ku ci bëgg da ngay contacter Marie Thiam rek mhm. ñaari xartu jëkkëram borom vax yu si ngay contacter mhm. boo ko wooyee wax ko li nga bëgg ak foo mënta nekk ci àdduna bi nag ak foo mënta mhm. nekk ci àdduna il suffit juste nga yóbbu nañu sa mesure sama tailleur bu ñaawal bi sama ginnaaw daggal la lu rafet ñaawal la lu rafet nga daal di sañse bu la neexee tabaski nga filaale ànd ak moom def lu la neex boo bëggee mën nañ la ñawal comme yow ñawal sa jabar ñawal sa doom hmm. lu waay bëgg rek boo ñëwee fii da nga ko fi fekk comme ni ngeen ko gissendo rouge bu baax bi mari mo ci jaar gis nga oyef oh, ya, na neex na ci tango ci état bi machallah ku ci bëgg rek mën nga ñëw ci mom gis nga du la déranger lepp nice machallah mari ñu bëggoon xam ak événement eh, bi di ñëw mi tabaski be ak yoy non nan ngeen jàppante ak client yi ak affaire yi ci ci client yi quoi waaw comme ni nga ko waxee rek ñu jëkke ci mm. robe bi nga sol mu ni rafet na neex na ci neex na ci été bi ah mën nga ko sol mën nga filaale moom dem fu la neex du la déranger. Mm-hmm. ku ne xam na ne instant yi dëkk bi dafa tàng. yi mm-hmm. tissu oyof yi mooy gën a neex ci tàngoor bi. Mm-hmm. mais yow dalaa jàpp nag def nga jongoma macha <laughs> allah ma ku ñu jëm ci wàllum tabaski bi nag ñi ngi ngi koy wax parce que tabaski presque li ci des bareetul. comme ni ko clients yi comme ni ko euh, euh, nit ñi di waxee rek. yëkk njug ca ba muy teel daal. clients yi dañuy teel a ñëw. ñu teel a defal lu rafet. ñu libéré leen ñu dem comme ça ñu bañ a am benn problème ci nga xamante ne bu tabaski desee ay benn fan ñaari fan ñetti fan. waaw parce que ñun noonu la ñuy liggéeyee ñun suñuy client ah dañuy teel a jóg ñu mhm. teel a ñëw ñu jàppale leen defal leen lu rafet ñu daal di sol ànd ak moom balaa tabaski bee ñëw ñun duñu xaar ba ñuy rang mhm. wala ñuy ñi ñuy teg pression mhm. wala dara parce que ñun suñu lépp day teel a pare ah boo ko génnante rek non non <laughs> moom moom boo mu la wax ak date beeg yëpp respecté même heure yaa bëgg a xam waaw boo ko génnante non non non non ñun kenn man ko ñun duñ taadal ku fi bëgg say ñaw teel a pare ku fi bëgg sañse lu kenn sañsewul mm. ku fi bëgg xeetu zip yu amul fenn comme xale yu jigéen yi nu ñu ko bëggee instant bi mm. dangay ngay teel a ñëw rek indi sa tissu wala nga ñëw jënd tissu ñu ñawal la mm. boo ñëwee daa noonu moo gën a gaaw soo jëndee tissu da ngay jënd tissu ñu jëlal la mesure ñawal la lu rafet bu la neexee même pas deux jours nga pare macha allah maintenant ku bëggoon jokkoor Marie maanaam ku bëgg déggante yow pour mën a am ci yu baax nan lay def ku bëgg jokkoo ak Marie ñaari xaritu jëkkëram borom vaccin virus yi. Uh-huh. da ngay def numéro bi rek 70 724 19 81. wala nga def 77 559 92 64 boo ko defee rek di nga ma jot. incha allah direct. incha allah macha allah kon tàttalu na rek Marie xaritu jëkkëram fan la nekkee. waaw Marie xaritu jëkkëram. mu mm-hmm. ngi nekk fii ci Guédiawaye notaire. Mm-hmm. Euh, tout près pharmacie notaire bi boo ñëwee rek dépôt bi rek Marie nga ciy teg. macha allah mu digg géejawaay la ne. Mhm. incha allah kon xale yu géejawaay yéen a ko déggandoo mu ngi nekk ci côté euh, pharmacie notaire bi ci côté dépôt gaz bi ku ci bëgg yu baax rek mën nga ñëw seet si ko ah mu defar la lu toj lu baax doo leen ko réccu maa leen ko wax. <laughs> ku réccu wax dëgg neex bëgg xeetu baax baax rek. fii ngay ñëw parce que ñun ci lépp la ñuy dox dañuy dox si wàllu mbasin dañuy dox si wàllu vax dañuy dox si wàllu voile dañuy dox ci tissu été dañuy dox ci tisi euh, màggal bu jotee dañuy dox ci lépp loo xamante ne nii rek ci xeetu bépp événement rek boo xamante ne ñëw na rek mhm. maari boutique daf ciy dox mhm. bàyyiwul dara lépp lu xam ne lu jëm ci wàllum sañ si jigéen rek mhm. ku ko bëgg rek ñëwal fii même bu dul sañ sax loo bëgg lu jëm ci néegu jigéen rek boo ko soxlaa ñëwal ci maari boutique incha allah di nga ko fekk te dina la aidé bu soobee yàlla macha allah kon yaa fi nekk xaritu jigéen ñi waaw maa fi xaritu jigéen parce que maa ah, laay dox ci <laughs> jéegi léegi lan mooy sa dernier mot waaw sama dernier mot rek mooy euh, bañ sante yàlla pare. Mhm. def euh, lépp loo xamante ni jigéen soxla na ko boo ñëwee fi fekk fekk ko fi. Mhm. loolu lépp dama koy jël sante ko sama borom kër. Mhm. di sant sama góor sama alaaji aas ndax su ma ñemee taxaw tey jii ba ñemee monté benn pro sama propre entreprise loxoom jugu ci. parce que heure bu ma gessoo moom laay gis sama wet. su ma tourné su ma gessoo moom laay séen kon lépp loo xamante ne moom maa ngi ciy dox rek. moom moo ma ko doo moom moo ma ci dooleel. kon dama koy ñaanal di ko wax kundul maabo moo xam li mu bëgg ci xol ci àddunaam yàlla na ko suñu borom defal mm-hmm. yàlla toog ba njaboot gam di ko delloo yoonu mag mm-hmm. di sant tamit sama client yi di wax ne wax dëgg neex yàlla euh, nekk awma ak client yu naqa deeg liggéeyal wax dëgg neex yàlla ndax lu ma def neex na leen lu may lu ma bëgg defit neex na leen mm-hmm. lu ma leen ñawal rek maari bu leen ñawalul rek pour ñoom soluñu lu rafet te loolu confiance moo koy def may sant sama tailleur bu ñaawal bi ci sama ginnaaw nga xamante ne heure bu ma jàqee bu ma ko woowee ñëw ah mu ngi noonu Fallou Sarr sama artiste bi boobu noonu maa ngi koy ñaanal moom tam moo xam li mu bëgg yàlla na ko suñu borom defal ah yàlla bàyyi leen fii yéen tam seen émission bi yàlla di def leen ngeen ñu koy dégg fu kaw a kawe a kaw yaara bi yàlla mu may leen seen propre télévision mm. ah ngeen toog bañ naan suñu suñu première émission ñu ngi ko defee woon ci maari boutique ci ñaari xaritu jëkkëram ah di santaale tam sama sama famille bàyyiwuma kenn parce que ñoom tamit lépp lu am rek fii lañ koy indi mm. pour ñoom ba ma monté lii léegi xooluñu ne ñawal nañ leen lu rafet xooluñu ñawal nañ leen lu te ñaw lu ñaaw sax amu fii mais lépp lu ñu am rek fii lañ koy indi ci maar yi ñeme ni mm-hmm. ñaane nañ jël seen dara di ko fayil feneen mm-hmm. wax dëgg neex yàlla jàppale nañ ma sama famille bàyyiwuma kenn nag sama sama géño sama meen su ma limee rek damay juum bàyyiwuma sama cousine yi ah mm-hmm. ak sama cousin yi nga xamante ne su ma daanoo ñoom laay dem këcc ñëw ñëwaat ñu ngi noonu uh-huh. kontaan ci Sénégal yëpp nag di kontaan seen mm, émission bi di kontaan si mbokk internet ñu saan yëpp macha allah. ñi ngi euh, comme ñi ngi jublu nag ci wàllu tabaski may wax sama client yi rek ñu daw ci gaaw parce que xéetu baax baax yaangi fi mbasin yaangi fi boré dé yaangi fi voilu déguisement euh, tabaski yaangi fi ah vaccin yu baax yi nit ñi mëna oté so ci tabaski bi tam mu ngi mën a lakkee tay yu baax yi tamit mi ngi fi képp ku ci bëgg rek daw sil gaaw bo ñëw fekk fi sa lu la neex nga daal di sol ñaw li nga bëgg ñaw ñu tayoo ñawal lu rafet tay baas bu ne muut nga laké ko mu ngi non géej gi dañoo wara sañ ci nak ci tabaski bi parce que lak bi da ci am solo quoi li nga ni koy tajé noonu <laughs>